Moustapha ak ñëpp nekk ba états une di ci def liggéey bu am solo di leen nuyu di nuyu itam ñi nga xam ne ñooy waa taxaw dakaar Bourse social soxna Wadja jiite ko depuis Maroc di nuyu tam ñi nga xam ne ñooy Dakar Bourse Sociale ànd taxaw ñu wéree di ñoom seen jili Ndiaye jiite ko di nuyu bonne volonté yëpp di nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi jàpp ci kaa yi di leen masaw nag ci kaa yi nga xam ne jot naa dugg beneen bi ci jiitu mooy kaawu sunu wéjuróom Ndeye Diouf ñu gis kenn ku ne woon na ma jooy ngir ñeewantu ko di sant yàlla rek ci gis ngeen koy bàyyee xel jógaat noonu sa sunu daal ñëw fii ci yarax tey seet sunu benn sœur boo xam ne dafa am benn góom bu ne ci lex bi mu sonal ko lool wax dëgg yàlla dem ba jaaxal ko dakaar ba social comme ni mu koy defee jóg fas yéene tourné moom vidéo ngir ñaanal ko ndimbal te leen ciy xaar yéen ñëpp te xam ne bu def lu baax ci jaamu yàlla yàlla yàlla moo lay fay. di gis tam ni ngeen di yónnee seen xéwal tam di ko def ci Dakar bi social bi ci ndimbali nii séddale bonne volonté yëpp du li mooy képp ku ne rek jël sa dërëm delloo ñu ko rek pour ñu def ko ci xéwal yi rek pour mun ko jox jaamu yàlla rek ñi ngi ñaan yàlla bi am fay dana fay yéen ñëpp di leen sant leen gërëm ndax gis nañ ni ngeen ci participer yéen ñëpp rek yàlla yàlla taxaw leen te yokk seen xéwal dama koy laaj fièvre bi ko daal kañ la ak nan la rek soxna si maa ngi nuyu. maa tudd. Ngone. ngoone Sarr. Ngone lii la dal kañ la dal. lii la daanaka ci fukki at la ma commencé daanaka damaa demoon gaasu ji daal mu commencé ma lakk def ab picc bu tuuti affaire bi dem ma koy faj ma wër ku nekk fu ma yaakaar fu nekk dem naa fa léegi nag damaa dema dem ba jeexal amatuma fenn fu ma aw ma ne woon ñu digtaloon ma fii ne ma waa Dakar bu ba demee si ñoom am nañ si ñoom yaakaar ma ne woon naa dem si ñoom. lii boobu ak léegi la. fukki at. da ngaa demoon gazo gaz yi ni ñuy def dem gaz sa bopp rek ci nga ko jëlee. ci laa ko jëlee ci la ma commencé wax dëgg yàlla. dem nga ci hôpital. dem naa ci hôpital ba soon dem ci maamoon ba soon ñoo daw ba sonn amatuñu dara ma bëgg ku dimbale ngir yàlla fajal ma ko ndax dama yore ak njaboot daanaka lu tollu fukki at nga wàcc say doom bi téel la ko it neexut. sama papa def na lu mu mën dem na ba amatul dara moom tamit ma ne woon naa seet rek pour ñu ma dimbale ngir yàlla faj ma man daa ku faj ma wër laa bëgg. nan ngay ak xeetu métier bu mel nii diiru fukki lii daal affaire bi bu dikkee bopp bi day metti mel ni liy màtt ci biir su guddee du ma nelaw affaire bi daal noonu la. lan la hôpital wax bi ñu demee dañ dañ koy opérer wala lan la hôpital wax. su ma demee hôpital waxuñu waxee opérer dañ may jox ay pàccar rek may diw. loolu kese lañ may defal. boobu yan hôpital nga demoon. hôpital Mbour Mbour laa mos a dem hôpital hôpital Yaraax bi dem naa ci euh, fii nii ni ñu ko waxee parc Hann waaw hôpital yooyu laa léegi lan nga wax ci lay seetaan te bëgg laa jàppale pour li nekk ci yow nga tàggoog moom ndax gis na ni yaa ngi dund ak yaa ngi dund ak jafe-jafe yaa ngi toog di upp nan lay mel. moom koy ku dimbal rek laa bëgg fi mu toll damaa damaa sonn fi mu toll nii boo ma gisee xam ne sonn naa dañoo wër ba sonn jaaxle rek laa defati fi mu toll nii kese ku dimbali laa bëgg rek yàlla faj ma wër ma sama sago ak samay waajur. am nga borom kër. am naa borom kër waaw. am sa borom kër. moom mi ngi subaa moom tam daa daw ba dee amul doole moom tamit waaw ñoo bëgg daal ku ñu dimbale ngir yàlla moo ñu indi fii. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz. yéen yéen a ci commentaire foo ko takk ci bétit weesu na fa benn picc rek bu nekkee sa kanam nga jaaxle waxuma ak lu mel nii wala ci tàllal loxo yéen ñëpp rek te xam ne ku def lu baax ci jaamu yàlla yàlla moo lay fay sonn na ci wàllu lu jóge lii muy dund ci métit moom moo koy yëg dem na ba mënatul nekk ak njabootam parce que fu bu fa demee rek mën a faju rek mi ngi fay daw boo ci boolee nag doole bariwul day gën a metti waaye tàllal na leen ci loxo yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen a ngi décanté situation yi yéen ñëpp rek maa ngi leen ciy tàllal loxo di ñaan ngeen dimbali ko jàppale ko ci paj mi sonn na te ku sonn ku ko dimbali mooy mbokkam di sant yàlla nag ci yéen ñi nga xam ne yéen ay bonne yi toujours ma du ma jóg ci di ko wax maa ngi leen di sant maa leen di gërëm ndax kaa lu métti métti métti yéen yéen a ma ciy dimbali su su nag ñi nga xam ne nag ñoo nekk ci àll bi diaspora bi muy doomu sénégalais ak sox suñu mbokk gambien yi nga xam ne kaa day métti lool mais kenn ku ne su bu kaa bi duggee dina ma woo jooy ne ma dinaa yónnee nangam jàppale ko may ñaan yàlla na ci kaa bi bokk wallu leen ma ci sunu sœur bi nga xam ne sonn na jaaxle na di wéeg métti te doole bariwul feebar rek dafa metti boo ci boole nag amoo la fajoo day gën a métti papaam daw na ba dee wax na ko boroom këram daw na ba dee kon yéen lañ ci yaakaar gannaaw yàlla ak yonent bi ngeen taal dinañ ci tàllal loxo yéen ñëpp rek te xam ne ku ci def lu baax yàlla bi nga bëtam bi te gis na ko ku def lu baax ci jaamu yàlla yàlla dala koy fay loolu amul ma dem te ñëw kon li ma naan rek bàq bi tooy na ko ji di nga góob nan fexe rek yéen ñi nga xam ne yàlla may na leen xéewal ngeen jàppale suñu sœur bi mu mën a faju li nga xam ne moo nekk ci lexam bi la jël ko dirance dix ans muy ànd ak moom te amul fu mu jëm te mun koo dagg mënu koo dindi tàllal ne lañ ci loxo yéen ñëpp. di sant yàlla nag ci plateforme boobu nga xam ne mooy plateforme Dakar Buzz Social numéro bi di 78 601 11 11 nga xam ni nee nañ képp kuy bàyyi xel émission bi rek boon fa woowee dinañ permettre ñun looñ fa yónnee dinañ ci mën a jot pour bu nuy seeti ma cas malade bi mën cee jël jox ko ci ñu gis ngeen koy bàyyi xel. waaye di dénoncer tam encore une fois li nga xam ne mooy arnaqueur bi topp sama vidéo yi tey suba woowaat na ma. naan ma man la moo get ngir lekk moom yitteem yëpp mooy lekk xaalisu malade yi bu la woowee dinaan la defal cent dièse 144 dièse soo ko defee mu wax la benn compte nga def ko boo ko defee mu yóbbul nekk sa compte bi tey man la mu jëwawaat ma lay xamal ni la yow mën ngaa rëcc nit ñi may mënoo rëcc yàlla yow sa yitte yëpp mooy fexe li ñu am jox jaamu yàlla yi feebar nga koy lekk xam naa ne am nga fit waaye yàlla la lay bàyyil naa ngi ñaan ci mbaaxu yàlla yàlla yàlla weer la wala bon loolu nga nekkee di wër sama malade leen arnaqué di lekk seen xaalis yàlla na yàlla weer ci baax ci barke weeru koor bi tey mu jënga ma waa tey jii ne ma defal jeex 144 dama lay defal dama lay dugal virement 1 million xëy na ñeneen ñi ngay ndax mais man mënoo maa ndax lekk nga ci xaalisu roqoy beey ba mu roqoy beey ñibbi àllaaxira booy ñëw na ko ko indaaleel ndax lépp loo lekk te may ñu la ko ëllëg di nga koy indaale mais yeewu leen ci képp ku lay dimbali di la laaj sa code secret yeewu leen ci wax laa mën tax naa ku lay dimbali di laaj code bi gëj naa koo dégg nag ba fan yi commencé waat na ko. tey man mii la woo sànq te waaye man mënuma cee ndax jéemal góorgóor uti noo amee te xam ñuy dimbali malade yi seen nawle lanu kon nag yow amoo benn pexe bu lekk xaalis malade xam naa ne nga fit waaye mën nga doon rëcc waaye doo ci yàlla plateforme boobu nag ma wax rek fi fa jël fukki junni dimbalee ko dugal ko ci paj mi ndax booy def lu baax yaa jiitu may ñaan rek ngeen fekk seen si te xam ne ku def lu baax ci yàlla jaamu yàlla yàlla moo lay fay kon Dakar boo Social dina ko jàppale cinquante mille ci biir paj mi tey ñaan mu barkeel ma jox ko cinquante mille Seydou Dakar Buzz social jàppale na ko cinquante mille jëlee ko ci plateforme boobu yéen yéen ñu ko jox ñu koy joxaat jaamu yàlla yi lu si ñëw rek joxaat ko jaamu yàlla yi faju nga ba jaxle diiru fukki at ngay dem ak sa métit ne daw nga fa dugg. Dakar Buzz social seet si la di la ñaanal ndimbal ba pare jox la fukki junni lan ngay ñaanal waa Dakar Buzz ak jéeg bu lan la. voilà fan wu gudd ak wër gi yaram ak ñu yàgg di am alal bii ba di ko mën di fajje di ko wër néew doole di leen ko fajje ndax su leen neexoon di ngeen am ko téye ko ndax loolu na bulu feeñ lii ngeen di def doo ngóor la ndax fa ngeen jóge man xawma ko dañu néew doole doo ngeen di yal na yàlla may fan wu gudd ak wër gu yaram. lan ngay wax ñi lay seetaan te bëgg laa jàppale pour nga génn situation yi. yàlla may leen gudd ñoom tamit sama papa ji laa bëgg ngeen ñaanal ko ak sama yaay wi nga xam ne mu ko jógee ba fu kenn xamul ñëw fi pour dimbale ma ngir yàlla day tëdd ba guddi du nelaw sama nga xam ne góor la moom tamit day tëdd ba guddi du nelaw sama doom bàyyi noonu ñoom tam dañoo daw a daw ba bëgg a dee ngir yàlla du yàlla rek kay fay yàlla na ma leen yàlla fayal ak yéen ñi ñëw ba fii. tax ma dagg si ngeen dagg man ngeen dagg seen i te ñëw fekk si ma fii yal na leen yàlla Serigne Touba Mbacke fay ci weeru koor yu ñu nekk. jërëjëf mbokk internet yu Dakar Buzz di gërëm rek di sant yéen ñi nga xam ne yéen a ciy def seen alal ñaanal leen ngeen tàllal leen loxo ngeen fekk suñu ci rek waaye di gërëm bon volonté yëpp di leen ñaanal yàlla taxaw leen yàlla jàpp leen di gërëm nag ki nga xam ne mooy Tické Mbaye nekk eh, borom soxna Seydou Diallo ca France. Tike maa ngi lay nuyu di la siyaar di ñaan yàlla taxawul te yàlla jàppale la gis nañ lu baax la ngay def ci émission yi di gërëm Fama Sène depuis Italie Fama Sène di nuyu sa borom kër nooyin lu baax la ngay def ci émission yi itam gis nañ ko Fama maa ngi lay nuyu di nuyu nooyin itam di ñaan daal yàlla defal leen jàmm ci bi karab Fadal mi ngeen tàmmate gis la ci cadre bu Seydou laa ci àndal mais fekk si leen ci kaa bi te xam ne ku def lu baax ci jaamu yàlla yàlla moo lay fay jërë ngeen jëf li ma nekk seen émission Dakar Buzz Social jërë ngeen ko bëgg a jàppale bi dina défilé ci barre écran bi lu ko ci waaye dugalal moom yow ak yàlla mais képp ku la bëgg a jàppale du la wax defal sa code secret jërë ngeen jëf